mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi faral di ñu seetaan ci seen chaîne leader Leral TV et Leral point net ñu ñëw fii fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, membre euh, action républicaine donc euh, ñuy ay jeunes politiciens yi nga xamante ni ci bu biir mouvance présidentielle la ñu nekk fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy actualité rawatina démb ñëpp yëg nañ ko muy choix bi nga xamante ni le président Macky Sall porté na ko ci ki nga xamante ni moom mooy daanaka le dauphin. Euh, de la coalition Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui Amadou Ba donc le candidat euh, bi nga xamante nii tàbb nañ ko pour mu représenter la coalition Benno Bokk Yaakaar en 2024 waaye laata loolu dañuy leen di bàyyi ñoom ñu nuyoog ñi nga xamante ni ñooy téléspectateur ak internetu Leral TV ak Leral point net ñu tàmbali ko ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Cissé Mouhamed nuyu naa la. fay nañ la monsieur Malang ñu ngi leen di remercier yéen waa Leral TV. ñu ngi profité aussi ci occasion bi di nuyu seen téléspectateurs yi suivre Leral TV yëpp ak leeral point net ñu man nag Mouhamed Cissé la tudd nekk membre Action républicaine Action républicaine bu ñu ko déggee benn plateforme la boo xam ne bu ñu ko créé ak léegi def na un an je pense que c'était au mois de septembre 2022 donc bi ñu koy créé dañ ko créé woon ci moment yoo xamante si ni dafa laajoon ay jeunes regroupé wu pour au moins wane Sénégal ak opinion internationale ko ni au Sénégal y a des jeunes réfléchis y a des jeunes intellectuels y des jeunes yoo xamante ne si ni mën nañ di participer au développement du pays y a des jeunes yoo xamante si ni duñu ay jeunes casseurs duñu ay jeunes insulteurs euh, et que aussi dañoo demoon ba benn instant euh, euh, ci dëkk bi nit ñemeetul wax péeteem nit ñemeetul wax opinion nit ñemeetul développer ay idéem ndax ay saaga ndax ay calomnie ñu nag ci lañ jël suñuy courage en deux mains créer plateforme bi pour di défendre et la coalition Benno Bokk Yaakaar et le président de la République défendre aussi les valeurs les valeurs vraiment citoyennes. défendre les valeur citoyennes dañuy ñëw ñi nga xamante ni moom mooy euh, Marème ma Marème euh, Faye ma Marème nuyu naan la. maa ngi maa ngi lay fay monsieur di nuyu seen téléspectateur ak mbokk internet yi. di profiter ci occasion bi pour saluer liggéey bu mucc ayib bi ngeen nekk di def depuis que vous êtes venu dans l' médiatique votre présence se sent di leen sant di leen gërëm par rapport à l' invitation d' aujourd'hui donc ki nga xamante ni moom mooy sa naataango tambali na ci li nga xamante ni moom mooy seen mouvement moom mooy action républicaine euh, li waral euh, ngeen taxawal ñi euh, nga xamante ne mooy mouvement boobu leen ndax mun nga ñëw ci li nga xamante ne de manière globale ci bi. ak hmm. li ko tax a jóg. parce que tous les Sénégalais ont pu constater les prémices d'une cassure sociopolitique bu ñu doon waaj a bett depuis 2019 ñuy seetlu ni du ñuy jox une nouvelle image de la jeunesse sénégalaise boo xamante ne ci calomnie lay nekk diffamation insulte wuñ ñi sutura nit ak saaga institution nous avons jugé nécessaire puisque nous sommes des produits de la République quand je parle de produits de la République c'est que la République a investi sur nous toll fi ñu toll Nous avons fait l'école publique, nous avons fréquenté les hôpitaux publics, nous sommes de purs produits de la République, comme 90% de cette jeunesse-là. Parce que le Sénégal, nous avons l'école élémentaire, nous avons def l'État def le ci accompagner, ba nga mel li nga wara mel. Donc il nous fallait réagir face à cela. Il nous fallait one opinion nationale et internationale, comme l'a dit tantôt M. Sissé, que Sénégal, l'image que nous forcer de la jeunesse de la jeunesse il y a des jeunes qui peuvent défendre les institutions de la République parce qu'à un certain moment donné ñun dañu gëm ni il fallait que les gens puissent qu'on puisse faire faire la différence aux gens entre ce qu'est l'institution de la République et la coalition présidentielle bi nekk au pouvoir il fallait ñuy def différence yooyu il fallait puisque les jeunes sont vulnérables à la manipulation et que dañu seetlu woon beaucoup de manipulation à travers les nouveaux médias sociaux une réaction à cela rétablir la vérité des faits à chaque fois que occasion qu'il y avait une occasion politique bu nécessité ñu ab ñu rétablir la vérité des faits li xew ba pare am na leneen lu ci yokk mooy y avait des régulateurs sociaux yoo xamante ne dañ daan wax face à certaines situations mais dans toute la situation que qu'on a décrite fii li wundu création ou action républicaine dañu seetlu woon ne les gens à se mettre en retrait par peur de se faire insulter wala d'être mis au banc des accusés comme ni ko Mohamed waxee dafa dem ba commencé woon nekk délit au donc face à tout cela nous avons décidé euh, de créer un mouvement muy action républicaine bi ñu nekk et composé exclusivement de jeunes boo xamante ne day réagir autant sur les réseaux sociaux que dans la dans la presse classique que sur le terrain politique. d'accord di réagir action action moom euh, kii maanaam euh, dagguma la yàlla bu la yàlla doog action républicaine kan moo ko kan moo kan moo ko taxawal ak kan moo ko jiitee fu mu toll nii. structuration bi ni mu demee parce que mettre ko au de la scène bëgg représenter la jeunesse bu fekkente ne c'est pas structuré. effectivement action républicaine ay jeunes yu nekk APR exclusivement des jeunes ñoo ko créé nous avons une coordination transversale pour beaucoup plus de clarté waxuñu action républicaine structurée wuñ ko action républicaine est très bien structurée avec des tâches dévolues à chaque individu selon son niveau de responsabilité mais la gestion elle est transversale et démb man maa amee woon parole porte parole du de de l' occasion action républicaine barki démb keneen la woon tey man la ak suma naataangoo Mouhamed Cissé suba mën na am keneen ak keneen parce que dañoo constaté ne mouvement yi nga xamante ne dañ ko organiser mu am bopp mën na am des problème de liaison dans la coordination moo tax ñu jël ay pôle massification pôle information réseaux sociaux ku ci nekk am nga responsabilité bu mag bu ti li action républicaine di dox chacun rend compte sur la base d'un rapport ñu synchroniser tout ce travail là centraliser ko mais action républicaine est très bien structurée avec des tâches dévolues à chaque individu. au-delà de cela mu ñëw ci yow ki nga xamante ne moom mooy Cissé. Mhm. tey boo leen jógee ne jeunesse bi da ngeen di parce que vous vous sentez. Euh, comme ñoo xamante ni tey dañuy représenter jeunesse bi. parce que yéen ngi naan am na ñoo xamante ni dañuy yaakaar ni jeunesse bi nii la mel nii la mel mais yéen vous voulez montrer un bon exemple. Mm-hmm. boo xamante ni exemple boo xamante ne du saaga. Mm-hmm. est-ce que jotul ngeen nangu ñii saaga ñi nga xamante ne beneen posture la nekk. Mm-hmm. ngeen nangul leen seen position mu doon combat de combat boo xamante ne combat de principe la. mu bañ a doon ko combat politique parce que ñi ngi gis ne ki maanaam la liberté des opinions ak ñu leen koo nangul seeni opinion seeni opinion ak seen façon de faire la politique nous l'acceptons mais en un moment ñoom dañ ñu doon commencer di waa di mettre dans une dans un impasse à ce que nous ne développons pas nous ne nous ne pouvons pas développer nos propres idées nous ne loolu la ñu bañ moo tax ñu créer plateforme bi mais aussi nangul nañ leen ko et que ñun nous sommes des gens vraiment démocrates mais am na fu muy toll day yàq image Sénégal parce que souvent dañ koy wax boo demee ANSD dañ lay jox ay chiffres plus de soixante quinze pour cent de la population est jeune ici au Sénégal hmm. donc nous faisons la majorité. est ce que du loolu ngeen comprendre moom moo tax ngeen bëgg a concentrer seen politique bi ci jeunesse bi. effectivement chaque tranche d'âge a vraiment sa mission nous sommes des jeunes nous devons faire de la politique de la jeunesse nous ne pas vraiment Nous faisons la politique de la jeunesse et nous devons montrer aussi un, un très bon exemple. te ci politique rek nañ ko mën a jaarale. effectivement la politique amul beneen voie amul beneen voie boo leen mën a bëri. bien sûr nous faisons actuellement voie yëpp la ñuy emprunter pour montrer l'image vraiment de la jeunesse sénégalaise dañuy def ay actions citoyennes. dañuy def ay li ci mel activités yi nga xamante si nii vraiment ça touche la population comme li ci mel ay don sang dañu koy def dañuy préparer actuellement suñuy persécuté mooy préparer ay. ay consultation organisation de consultation gratuite pour la population ñu ngi préparer aussi avant juste rentrée des classes ñu ngi préparer nu ñu accompagner surtout suñu rakk yi nga xam si ñoo nekk ci ci ci ci ci élémentaire bi ak ci collège yi ñu ngi leen di préparer pour accompagner leen euh, pour le moment li la Almara wax y a beaucoup de comités au sein de la plateforme action républicaine yoo xamante si ni kenn ku nekk yaa ngi réfléchir vraiment dans le sens développement vraiment de la jeunesse sénégalaise. dafa am politicien bu nekk seen gannaaw. non actuellement y' foo leen jëlee seen fonds encore. non nous n'avons pas encore de fonds. yi action sociale yi ngeen bëgg action euh, sociale yi yi ngeen bëgg def seen fonds. waaw parce que ñi nekk action républicaine ay jeunes lañ donte ay xale lañ mais ñun ñëpp dañuy liggéey macha allah mhm. te du yàlla def na du ñun ay novice ci politique xëy na bëri ay kàngam yu ñuy dégg ci politique ñun ba ñuy nekk. ay kañoot ngeen di def. ah ana kañoot ngeen di def. bëri nag ay kàngam yooyu dégg ci politique bi ñu duggee ci politique ak léegi ñun bi ñuy politique ak léegi mën am na lu ñu mën a jàngal ci wàllu politique on a assez d'expérience pour mën a chercher des ressources ay inter action républicaine day nekk un canal de passage ay intermédiaire lañ mais il y a des structures indiquées par exemple don de sang bi muy wax on a organisé un don de sang ou des consultations sur le cancer du col de l'utérus yoo xamante parce qu'il s'agit de créer des partenariats avec des structures indiquées donc logistique bi ngay créer pour teg loolu matul dara action républicaine noonu la ñuy fonctionner parce que yàgg nañ ci politique xam nañ ne l' action politique ne nécessaire ne nécessite pas obligatoirement des moyens colossaux en réalité parce que ñi nekk action républicaine ñëpp c' des gens yoo xamante ne dañu def du militantisme depuis le bas âge donc on n'a pas de problème à ce titre là wàllu autorité politique je crois que le temps raison ou le temps le amul benn autorité politique boo ne xamante ne moo nekk suñu ginnaaw amul benn autorité politique yu ñuy liggéeyal comme l'a dit Mohamed tanto du kese politique moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor te développement du langue politique kese bëri na yeneen force yu entrer en action yoo xam ne bokkul ci politique et li ñuy essayer def mooy une convergence des causes c'est-à-dire une synchronisation des actions comme il l'a dit tantôt dañuy def social dañuy def humanitaire dañuy def politique li ñuy def ci politique li ci ëpp de la pédagogie on les consciences parce que de à ñu jóge ci 13 millions d' habitants ba romb 17 millions xam naa ANSD bu publier les résultats du dernier recensement ñu jege 20 yi comme ni mu ko waxee léegi de ces 20 millions d' moins de 35 ans il nous faut réagir il faut ñu jooyanti ñu seetlu ne avec la floraison des nouveaux médias sociaux jeunes yu bëri léegi politique daf leen a ñor boo xoolee métier bi ngay def yow n' importe quel jeune bu amul accréditation wala qui n' est pas assermenté il peut se permettre d' ñun face à tous ces problèmes là ñu ne il nous faut réagir il nous faut avoir une certaine posture am na posture de pédagogie boo xamante ne boo ko boo boo ko yoree ressources yi bu bëree sax mën naa yàq liggéey bi moo tax ñu koy taqale et ni ñu koy taqalee nii dafa mel ni moo ñu jig parce que mooy baax parce qu'on réussit nous nous réussissons à nous faire entendre nous réussissons à mettre en en en œuvre des projets de développement wala des projets de politique publique indépendamment de tout secours d'accord d' accord mais dafa loo xamante ne dafa xaw lëndëm sama xel bi mooy yéen coalition Benno Bokk Yaakaar ngeen bokk. Mm-hmm. lan moo tax rangé woo leen derrière Moussa Sow bi nga xamante ne Cogère la nekk boo xamante ni ça représente la jeunesse. ma euh, indiwaat une précision de taille d'où l'importance d' républicaine en fait xam nga ci njëlbeen bi j'ai dit que. action si si di nga ñëw ci loolu ah. je disais à l'entame de mon propos que action républicaine ay jeunes yu nekk APR ñoo fa nekk mm. mais dama ci dolli ne ay jeunes yu nekk ci ay instances régulières de l'APR ñoo fa nekk. Par exemple, je suis le chargé de la communication de la COGER départementale de Thiès. Il y d'autres membres yu nekk ci yeneen structure du parti bi des structures régulières du parti yu bokk action républicaine juste pour vous expliquer que la chose c'est du sérieux Moussa Sow sur une autre dans une instance du parti ci instance du jeune dans le cadre du parti xam nga nous sommes un mouvement dans le parti mais parti bi mouvement ak mouvement de soutien ak instance régulière bokkul mm-hmm. Moussa Sow exemple dans les instances du parti sama kilifa la mm-hmm. régulièrement C'est un combat de leadership, si c'est. Oh euh, le combat de leadership. Un mouvement dans, un, dans une coalition. boo xamante ni euh, ces fragments de mouvement. mais loolu mais loolu maanaam loolu loolu fi lañ fekk. la coalition est mooy mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar est composée de beaucoup de partis et beaucoup de mouvements. le président Macky Sall le président ce qui est bien sûr yoon la. ce qui est important mooy kenn ku nekk xam sa mission ak say limites fan nga war li la Almarin wax léegi mooy loolu mooy dëgg ci suñu biir am na ay beaucoup de membres de la COJER nationale en l'occurrence Almarin il y a quelqu'un aussi qui dirige le, la COJER départementale de de Thiès qui fait partie de nous mais du jaxase mukk ñaari liggéey yi Moussa Sow il dirige une instance du parti nous nous incarnons un mouvement qui accompagne la coalition Benno Bokk Yaakaar foofu du mës a am nuance da ngeen jógoon am ay jamono yoo xamante ne ni ngeen ne Amadou Ba président da ko war a tab pour mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar muy loo xamante ni vous faisiez partie des premiers yu njëkkoon ci ay communiqué ñu gis ko ci presse bi presse bi lan moo waraloon choix bi ngeen porté ci Amadou Ba. Amadou Ba. waaw te mu amoon yeneen candidat yoo xamante ni ñu am fi. woon nag candidat yoo xamante si ni ñun ñëpp aussi respecté nañu vraiment salué nañu woon aussi seen posture parce que ñoom ñëpp vraiment sont militants sont des militants vraiment ci accompagnent le président de la République mais en un moment euh, politique da ngay def ce choix bien vrai joxoon nañu carte blanche le président de la République pour qu'il nous fasse vraiment euh, la proposition de son dauphin mais en un moment aussi demoon nañu ci presse bi def ay communiqué souhaiter à ce que le président choisisse la personne de Amadou Ba le premier ministre pourquoi ñu def loolu tamit du defuñu ko ci benn hasard nii rek parce que dañoo interroger histoire suivre la carrière administrative euh, du premier ministre suivre sa carrière politique surtout et sa loyauté euh, derrière le président de la république ñu xam ne kii c'est un commis vraiment de l'administration et que aussi c'est un homme d'État euh, qui se respecte et que artisan la ci plan Sénégal plan Sénégal émergent parce que bi ñu demee club de Paris euh, en 2014 moom il faisait partie voilà de l' équipe qui accompagnait le président de la République donc artisan la ci PSE bi te PSE dafa nekk loo xam si ñun daf ñu ñor dañ ko gëm nañ ni su fi président de la République Macky Sall jógee il faut que ñu am quelqu'un boo xam si ni il maîtrise vraiment ce projet là pour mën a accompagner. te kooku rek la mën a non suñu yëg-yëg. ci Amadou Ba la nekkoon. wala li leen arrangé dernier communiqué ah. wala li leen arrangé. non du lu ñu arrangé vraiment Amadou Ba c'est quelqu'un boo xam ne si mosuñu ko gis. Hmm. mosuñu toog ak moom mosuñu ko dégg directement mais c'est quelqu'un qu'on a suivi depuis des années ñu xam ne kii vraiment objectivement kii moo war nekk koo xam ne si ne mooy nekk le dauphin du prix. li ngeen bëggoon am ngeen ko président tabb na Amadou Ba pour mu représenter seen coalition benn bokk yaakaar 2024. Hmm. vous pensez qu'il pourra faire Euh, du li ñu bëggoon mooy mais lii gën la li ñu njortoon loolu ngeen bëgg euh, li ñëpp bëgg la parce que dañu li ñu bëgg d'abord dafa am lu ko sutaan li ñëpp bëgg loolu dañ ciy taxaw après dinañ nañ dinañ ci dellu si ah, Amadou Ba a été choisi candidat <coughs> de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024 ñun bi ñuy wax naan suñu sañoon Amadou Ba nekk ki nga xam ne moom la président de la République di choisir nekkul un choix boo xamante ne on l'a fait pour les Ba nekkul un choix boo xamante ne dañu ko def pour far wax naa sànq àllantam l'entame de mon propos que ñi composé action républicaine donte ay xale lañ yàgg nañoo politique yàgg nañ ci langue politique am nañ expérience ak vécu ak passé politique suñu choix ci Amadou ko dañ ko teg ci perspective parce que dañu toog waxtaan mbëkkante ay argument mbëkkante par rapport à des supposés candidats kan mooy war a baax nous avons pu constater que Amadou Ba depuis à la DGID d'abord il a réussi à réformer le code des impôts et domaines ce qui a été le casse de quatre des directeurs précédents ñu jógee foofu c'est un artisan du plan Sénégal émergent Mohamed a cité le club de Paris damay rafet dama dama ciy yokk le sommet de Davos en parce que président de la République Macky il n'a pas promis aux Sénégalais ce qu'il n'a pas fait parce qu'il a promis d'inscrire comme ni ma ko waxee sànq action républicaine ñun xam nañ Sénégal xam nañ li nekkoon Sénégal avant 2008 xam nañ li fi nekkoon avant 2012 xam nañ ce que le président Macky Sall a pu accomplir quand je dis xam nañ Sénégal je parle du vrai Sénégal le Sénégal des profondeurs de Sémé à Waoundé à Kidira à Goudiri Dimbori Neteboulou Ndogo Babacar Kotiari je parle du Sénégal des profondeurs et le président Macky Sall a réussi avec le président Amadou Ba avec président Amadou Ba <clears throat> artisan du plan Sénégal émergent a jeté les bases de l'émergence par la création d'une équité territoriale tey secteur d'activité boo jël ci société bi coalition Benno Bokk Yaakaar avec le président Macky Sall à sa tête en douze ans de règne def na ci ay jéego lu am solo ñu gëm ne bi ñuy wax waxu plan plan Sénégal émergent sax la perspective était à deux mille trente cinq pour que ñu taxawaat Sénégal évaluer xool yenn yan yan perspective la ñuy joxaat suñu bopp. ñu gëm ne Amadou Ba toute sa trajectoire politique bi mu nekkee dans les gouvernements presque qui se sont succédés auprès du président Macky Sall il a assez mouillé le maillot c'est un homme intègre c'est l'une des rares personnalités politiques yoo xamante ne même l'opposition radicale yëkkateegul gàtte ko ci kawam mais au-delà de cet état de fait ñun caractériellement dafa am un facteur très important par rapport à l'avenir de ce pays boo xam ne action républicaine daf ñu ñor parce que dañu xam paix ak stabilité sociale lan la mun def Sénégal ak ñun tradition historique lan la ñu xam ñu xam la situation géopolitique internationale et ouest africaine ñu xam les perspective du Sénégal en termes de ressources ñu xam fi Sénégal toll en terme de démographie en termes de pensée ñu xam li àdduna bi joxe en termes de manipulation de masse ak suñu niveau éducation donc yooyu yëpp dafa entrer dans les critères qui nous ont conduits à dire que Amadou Ba pourrait être serait l'homme de la situation parce que caractériellement nekk na nit koo xamante ne mën na nekk au-dessus la mêlée mën na tëddee njaaxaanaay mais plus important encore mën na concilier des positions divergentes. concilier des positions divergentes au sein de Benno Bokk Yaakaar il a déjà une divergence. au sein de Benno Bokk Yaakaar déjà avec la le choix porté sur lui président bi mu ko tabee nii rek il y a eu des dislocations et des gens qui sont sortis. ce n'est que Aly na. Mhm. démissionné ci poste il faut s'attendre à d'autres aussi on ne le souhaite pas. mais quand même c'est prévisible. à partir depuis démb amoon Euh, depuis démb dinañ signalé wu mais gis nga li xew APR depuis l'annonce du choix du candidat ce n'est que l'expression de la démocratie qui prévaut je crois que vous avez lu les mots de Ali Ngouille Ndiaye lii mooy démocratie lii mooy vigueur damay fàttali ne Benno Bokk Yaakaar suñu histoire politique li muy riche li ñu bëri ay hommes politiques yu illustre Benno est la plus la coalition <coughs> la plus longue de notre histoire politique moo fi duré douze ans et que Ba au-delà de de Bokk Yaakaar il peut rassembler les Sénégalais. Parce que ce serait nihiliste de dire qu'il n'y a pas prémisse de rupture politico-sociale. Le caractère de l'individu compte à ce titre. Le sens de la responsabilité, le sens aigu de l'État compte dans les paramètres qui entrent en jeu. Parce que le Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins. Donc Amadou Ba, au-delà de l'appel, quand je disais que réconcilier des positions divergentes, je parlais même pas de la coalition Benno Bokk Parce que je sais qu'il a le sens de la République. Avoir le sens de la République implique de comprendre une nation la ñu boot. si si da ngeen jóg pour xalamal Amadou Ba di ko di ko taggal ay maamam di ko waxal ay mbaax moo leen tax a jóg wala da ngeen nekk ci logique boo xamante ni c'est une logique politicienne wala da nekk ci logique boo xamante ni c'est une d'état parce que ku wax tey Aly buy Ndiaye tey moom itamit bokk na ci ñi nga xamante ni pratiquer nañ état. xam nañu luñ état bi di doxee mu nekk dans le dans les zones yoo xamante ne c'est les zones les plus reculées mu nekk Linguère dëkk Linguère Amadou Ba Ndakaaru lañ ko xam ku dul Ndakaaru ñu ko fenn pourquoi vous n'avez pas porté votre choix sur Aly Ngouille Ndiaye qui hier même après le choix porté sur Amadou Ba mu démissionné d'abord da ñëw ci li nga xamante ni mooy commentaire u démission Amadou euh, Aly Ngouille Ndiaye ah, je pense que euh, sama camarade bi expliqué na ko léegi suñu choix ci Ba du du loo xam ne dañ ko animé ci la politique politicienne non non loin de là. parce que la guerre des positions. non c'est un choix non guerre des positions non c'est un non non non Amadou Ba. non je vous dis je vous dis voilà jege c'est un choix réellement objectif amuñ ci benn calcul boo xamante si nii dañ ko ciy def li la wax léegi Amadou Ba vraiment c'est quelqu'un boo xamante si nii depuis euh, mu nekk ci biir gouvernement bi ñu ngi koy suivre trajectoire depuis mu nekk DGID ñu ngi koy suivre trajectoire am. voilà donc quelqu'un la boo xamante si ni ñun dañoo teel a wane suñu péete ci moom parce que Macky Sall le président Macky Sall mënuloo jékki-jékki nii rek au hasard xëcc la teg la ci wetam def le premier ministre loolu mënul nekk le président Macky Sall xam nañ ni c'est un génie dans la politique xam na bu baax li muy def te maîtriser na bu baax njabootam donc ñun mënuñoo gën a comprendre wala ñu gën a xam président Macky Sall vraiment c'est lieutenant il sait ce qu'il fait il maîtrise vraiment ses hommes et que li nga wax léegi ci ci ci ci le ministre Aly Ngouille Ndiaye vraiment nous respectons sa position euh, nous serons toujours démocrates vraiment ñu nangul ko li nga xamante si nii moom la bëgg Almare wax na lu ko léegi bu fekkoon ni dafa nar a am ay vagues de dislocation doon nañ ko sentir depuis hier parce que c'est lui seul qui s'est vraiment actuellement prononcé vraiment de sa démission te donc loolu moom libre na ci mu def choix am mu dem euh, baatu li mu nga xam si ni moom la gën mais ñun suñu choix dañuy continuer di ko porter ci ci ci Amadou Ba heureusement foofu tamit dañ ciy remercier vraiment di ci saluer euh, le président de la République parce que je pense bien que dañ naan dégg nañu parce que avant muy def loolu def nañu deux à trois sorties pour expliquer pourquoi la personne Amadou Ba devait être choisi et il l'a fait ci sens boobu aussi ñu ngi ko ci félicité di ko ci remercier bu baax a baax. donc 2024 il faut s'attendre à ce que action républicaine rangé wu ci ginnaaw Amadou Ba di ko jàppale au mépris ou bien ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy Aly Ngouille jaay Mame Boye Diao ak ñeneen ndax mun nañu xam li nga xamante ne mooy les perspectives bi nga xamante ni mun nañ ko xaar ci seen. mouvement action républicaine ci 2024 et au-delà de 2024 2024 si vous avez des ambitions pourquoi pas vous parce que ay jeunes ngeen mënoon nañuy tànn kenn ci yéen koo xamante ne wala bokk ngeen samp mm-hmm. samp samp ndënd pour 2024 mais quand même on sent si elle veut être représentée elle veut sentir mêlée dans les affaires du du du jël benn décision non xam nga c'est àdduna moom lépp question de trajectoire déjà bu ngay wax léegi guerre de positionnement par rapport à Amadou Ba xam naa guerre de positionnement bi bokk mënuñu ci bokk action républicaine parce que action républicaine a pris position depuis Mathusalem par rapport à la candidature. parce que vous avez compris rek da ngeen comprendre fu président jëm rek. parce que du ñu jiitu gars c'est ce qui fait la différence entre les organisations politiques en fait avoir la capacité de lire la perspective politique. de lire entre les lignes. parce que moom moo leen arrangé mënoo leen jël keneen. boo leen jëlee keneen yi tamit. Euh, ça va non c' pas une question parce que politique amul ay lu la arrangé yooyu loolu ça n' existe pas en politique y' a pas de dépa y' a pas d' état d' a pas d' émotion. on est soit chirurgical et pragmatique on une combinaison gagnante soit on l' pas et on perd politique loolu amul ay tëddee fii wala féetee fii et au delà de ça. je tiens dafa action républicaine dañ ko sos ci beneen contexte biñ koy sos contexte bi tax ñu sos ko du nit moo tax tey parti bi ñu bokk muy alliance pour la république nekk jiite coalition Benno Bokk Yaakaar dafa nekk ci combat étape bu mu toll dañuy ànd ci combat yi mu toll mais du tee suñuy action citoyenne suñuy action de développement durable comme ni ñu ko wundoo ci préambule de déclaration de création action républicaine noonu lay continuer en termes d'action sociale en termes de conscientisation en termes de sensibilisation de la jeunesse par rapport aux sujets d'intérêt nationaux suñuy action day continuer au-delà de la présidentielle parce que autant am nañ responsabilité dans nos dans notre parti et dans notre coalition autant am nañ responsabilité sociale vis-à-vis des Sénégalais mm-hmm. ñaari responsabilité yëpp incha allah action républicaine dafa fas yéene endossé ko mm-hmm. continuer ak moom incha allah si c'est c'est une perspective un projet au-delà de. 2024 bien sûr <laughs> mooy li la Almoré léegi rek action républicaine est née bien avant. bien sûr Amadou Ba bu fekkente ne gagné nañ ko 2024. bu fekkee ne gagné nañ ko. non nous te incha allah euh, la victoire nous sourira incha allah je le souhaite bien. Amadou Ba lañu ñu nar a accompagner mais Amadou Ba taxul ñu créer action républicaine. encore une fois ah, loolu parce que mënu mënuñoo mënuñoo ne nu serons des défenseurs vraiment de la coalition. benn Bokk Yaakaar et le président de la République et que le président de la République fasse son choix pour Amadou Ba ñu ngi génn feneen xalaatuñ ko. nous allons l'accompagner nous allons être logiques par rapport à notre création du mouvement nous allons accompagner le président euh, Amadou Ba euh, ba gagner 2024 incha allah bu ko gagner aussi ba pare nous allons aussi la l'accompagner parce que foofu lay gën a métti. diriger un pays, vraiment, c'est beaucoup plus difficile qu'aller pour sa, sa conquête. Nous avons tàggatoo euh, message bi nga xamante ne moom avons lancé, surtout c'est une coalition, parce que ça part dans tous les sens, dans votre coalition. Oui, D'abord, nous voulons remercier l'invitation que nous avons faite, de l'année, nous avons avancé dans le monde médiatique. li may terminer mooy yeneen candidat yi nga xamante si ni ñoo nekkoon ak Amadou Ba dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu ngi leen di talal loxo di leen ñaan à ce que ñu rejoindre def comme le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dellu vraiment ñëw derrière du baax parce que euh, l'union fait la force bu kenn ku nekk demee te ñu ngi koy wax sànq. la coalition benn Bokk Yaakaar mooy coalition bi nga xamante nii moom rek moom la ñu mës gis ci Sénégal mu dure pendant douze ans donc président Macky bi ko dirigé woon tey moom moo def son choix ci Amadou Ba donc nañu jàpp ni président Macky Sall moom moo fi nekk ba léegi Amadou Ba moom mooy diriger actuellement ñu ngi invité ñëpp ñëpp ñëw nekk derrière sa personne pour ñu gën a mën a avancer doxal le plan Sénégal émergent. jërëjëf a ah, je tiens d'abord à remercier. la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar par rapport à la diligence, au sérieux et au pragmatisme qui a conduit, qui encadré tout le processus de désignation du candidat de notre coalition, di remercier le président de la République nga xam ni mooy le premier patriote du pays xam ni tous ses actes tout au long de son magistère l'ont démontré di remercier seen téléspectateurs yi ak seen internautes yi di leen sant di leen gërëm Euh, di leen jox rendez-vous très bientôt au de nouvelles actions politiques euh, à impact à fort impact social wala à fort impact pour le développement de ce pays-là. un réel plaisir de partager ce plateau avec vous Faye Cissé di leen gërëm di leen sant bu baax euh, ci seen pertinence mais aussi ci seen engagement en tant que jeune parce que aujourd'hui wax nañ ko sànq ci seen i kàddu jeunesse bi nga xamante nii tey daanaka moo ëpp ci population sénégalaise tey war nañu mën a gis seen bopp. ci li nga xamante ne mooy action républicaine bi di leen gërëm di leen sant jox leen rendez-vous yéen ñi faral di ñu seetaan saa su ne ci leeral TV leeral point net ci seen beneen daje seen entretien exclusif euh, ci wàllum actualité ak li nga xamante ne mooy xew-xew réew mi jërë ngeen jëf.